mbokk internet yi ñu ngi leen di euh, nuyu di leen dalal fii ci Thiès quartier Guy Sombel xam ngeen ne tey Sénégal dafa war a football ak Congo Brazzaville euh, ci euh, éliminatoire première journée bi war a jëm ci éliminatoire CAN 2021 Habib Diallo nag bokk ci ñi nga xam ne tey Aliou Cissé daf leen woo ci équipe nationale bi moom abib Diallo xam ngeen ne fii ci cees fii la cosaano ba tax na tey ñu ñëw ci quartier waaye ñëw fi nga xam ne fii la famille nekk fii ci cees yéene un xool ñoom nan la ñuy waajalee match bi euh, fas yéene itam xool euh, seen doom euh, international boobu ñoom ñoom nan lañ koy waajalee itam waaye nan la taxawee fii ci koñ bi Habib Diallo donc ki ñu toogal nag du kenn ku dul woy juróom bu jigéen maman ñu lay remercier ci dalal bi ñu dalal fii di la nuyu tur bi naka la. Aïssata Gueye maa ngi leen di nuyu sama doom yi di sant yàlla sunu boroom moom mi nga xamante ni moo waral lépp. di sant yalla sunu borom bu baax dal sant abib Diallo sama dom la sama dom la di ñaan yalla sunu borom yalla nako yalla la fal cat dal cat ak lamiñ musiba ak bala yalla musul ko fa mu bëgg ag ci carrièream yalla nako fa yalla agalé ci kàttanu borom bi yaangi dégg sama turondo papa la sama xarit la lekul dara bàyyi ma sagal yalla nako yalla sagal ci kàttanu borom bi di ñaanal rek nak ci kaw ci kanam lepp lu mu bëgg suba ba jant so yalla nako yalla may ci borom fa ay moroomam àgg yal na fa àgg ci kàttanu borom bi di ñaanal ñëpp mook ay moroomam di ñaanal ay magam ak rakkam ñoom ñëpp ku ci nekk fa nga bëgg a àgg rek yàlla àggale la fa ñu dugg ci match bi nag bisimilahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulilahi rabil alamin di ñaan ndam rek yal nañu ko yàlla may ci kàttanu borom bi loolu rek la ñuy ñaan waaw ba doon ñëwaasal toujours ci carrière abi ba muy gën a nekk tout tànk euh, nan la nan la duggee ci football tey boo ñu si doon ñëwaatal euh, ba tey muy am carrière bu am solo bi muy am bañkat rek ndax moom dafa mës a bëgg football nag dafa mës bëgg football ndax ba muy dem ci football mi nga naan ma yaay baal ma football mu ne ko Habib jàng bëgg na mu ne ma yaay baal rek ma dem parce que daf koo bëggoon daal te nit ki li nga bëgg lu ne boo ci góorgóorloo rek yàlla jàppale la ndax bëgg a dimbali ndeyam ak baayam rek moo taxoon mu ñafe ci football bi ndax bëgg rek sagal ndeyam ak baayam looloo ko gën a poussé ci football bi Euh, fi ñu nekk nii euh, gis nañ ne euh, ba légui ñu mu doon andal ses amis d'enfance ño ño fi nekk loolu tam yaakaar naa ni lu am solo la dem ba nekk international nekk professionnel waye faté wo sa demb wallahi non la def dé ànd ak ay ñamu daan andal ba mu yuru dara ànd ak ñoom yaa dégg ci ngor parce que nit moom bu ngor dañee ci yow rek déssé wo dara ne da ngay am ngor xam dimbu xam tay parce que fi kenn kenn yobul dara da lépp fi lañ koy bayyi nit ña nga xam démb ak bërki démb rek jàpp ci te moom ab bi noonu la def te man dama ko ciy encouragé nag di ko ci jàppale ña mu daan àndal démb ak bërki démb ñu mu war dimbali mu dimbali leen parce que doole yemut waaw rek laay ñaan yàlla gën koo yokk wér ak wér leeg fekkeek tal yàlla na ko ko yàlla defal ñu fekk ko. Euh, message bi nga koy adressé en tant que supporter laay wax ba pare waaye en tant que wayjur ci carrière am nan nga koy dénk ci ay kaddu. dénk ko yàlla Mawlana Tabaraka moom mi xam lépp mën lépp te moom moo waral lii lépp. di ko ñaan rek yal na yàlla xeeb dolli yal na ko yàlla gën a taxaw yàlla jàppale ko yàlla mu dajeeg lenn lu ko jaaxal ci kàttanu borom bi ndax lekkul dara bàyyi ma nag lekkul dara bàyyi ay moroomam lekkul dara bàyyi ay magaam ak rakam ak papaam waaw papaam nag dafa wàccewul bu wàccoon xam naa dina am lu ci wax ko ñaanal yàlla rek ñaan rek waaw mhm, jërë ngeen jëf yéen xale yi xale yu baax ngeen yal na leen yàlla taxawu sàmmu leen yi ngeen bëgg yàlla defal leen ko ci kàttanu borom bi loolu rek laay ñaan mhm. donc euh, dañ ngeen un peu kàddu yu am solo yi nga xam ne kii euh, di way jur bu jigéen euh, international sénégalais boobu abib Diallo yëkkati na ko.